tëraleen la mag ñi bàyyi muy bi ñu wuute ci yooyu yëpp itam dañoo jëlale wuute yooyu ñuy mën a tàqale ànd ci li ëpp li ñu ëppal njariñ te muy booloo joxante loxo ngir mën a nga mën a dund ci ak dal ak jàmm kon loolu mooy tomb waxtaan bi nga xam ne moom lañ fas yéene faram-fànce ndax askanu Sénégal askan la woo xam ne dafa siiwee askanu wu mën a muñalante askan wu déggoo di dund ci dal di dund ci jàmm ci diir bu yàgg yàgg yàgg muy nono fi mag ñi bàyyi ba noppi ñu di ko topp ba nëgëni siiwee gi askan wi siiwee loolu sax moo waral ñuy as ñuy dàkkantele Sénégal réewum jàmm réewum teraanga bari na loolu ñuy dégg ci làmmiñ yi kilifa yi yenn kilifa yi moo xam kilifa politique lañ wala kilifa yi diine ci ñaare bu ay daje amee danañ dégg ci seen làmmiñ ñu naan Sénégal benn bopp la mëne su ko xar ñaar loolu du dëggal rek li ñu yàgg bàkkoo muy suñu devise naa mooy chiar watani devise nationale bi ne Sénégal euh, un peuple un but une mooy shaabun waaxid wa hadafun waaxid wa aqida waaxida mooy dañ ñoo bokk bëgg ñoo bokk jublu mooy dañoo jublu luy luy defar askan bi ak lu ko yokk loolu mooy jublu askan wi loolu nga xam ne nag noonu lañ yàgg a doxe moo tax réew yu baree bari ñeewe senegal jàmm ji ñu nekk kon nanu fexe ba bu nu ko mujjee mu réer nanu fexe nekk xayru xalafin li xayri salaf ndax li ñu naan coup d'état militaire sax yàlla dogal na mustam Sénégal te yàlla bu mu fi am te ñu ngi koy dégg ci réew yi ñu wër wala réew yi sori kon màndarga mii ñu màndargaal ñi nga xam ne ñu bari moom lañu ñu ñeewe ànd ak sunu wuute sunuy wuute ci wàllu ci wàllu làkk wàllu xeet wàllu wuute ay gox yu ñu dëkkee ci biir réew mi ak wuute ci wàll askane askanonte ci wàllu diine wàlli tariixa wuute yu yëpp teewul ñu joxante loxo di dund ci dal di dund ci jàmm kon bu ñu demee ba jëmmi jamono ñu gis ay yëngu yu xew ci réew mi sabab di fitna ju metti ba ay bakkan rot ci alal yu bare bari yàqu ci yooyu day wane ne wàcc nañ e, yoon wi ñu tëralu leen loolu lu ñu jëggaane la rek bitim réew ndax ndax dañuy ne àddina bi dafa mel ne ndëkk su ndaw ndëkk ndëkk su ndaw la léegi jokkaloo gi lu xew ci fa gën a sori ci penku mën naa mën naa yendu si fa na sori ci sowu wala lu lu xew ci fa na sori ci sowu itam mën naa fanaan fa na sori ci penku loolu euh, évolution bi nga xam ne moom la adduna bi évolué ak technologie moo waral loolu moo waral jokkaloo gi moo waral kon itam bu ñu gisee yeneen jikko ak yeneen melokaan yu bokkut ak yi ñu woon dañuy xam ne loolu lu ñu jëkkaane la waaye li wartiifu kenn ku nekk ci nun mooy jéem a sàmm ndono loolu sàmmu déggoo gi ak joxante loxo ànd ci li liy defar réew mi luy boole askan wi luy tasaare ak cofeel ak mbëggeel ci diggante askan wi di dimbalante ci lu baax te moytu dimbalante ci safaan ak noonu ndax war na noo doy sëkk référence rek war na noo doy sëkk misaal ne bëgg sam réew ak saw askan daroora charia la daroora aqliya la ak daroora insaaniya la la ciy misaal ci loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko ay noonam génnee màkka loolu nekkoon na lu tiis ci moom ba ca la waxee waxeem ju siiw jooju nga xam ne war nañu ko teg sunu kanam toujours muy maa atyabaki min baladin wa ahabbaki na walaw mi anna qawmi axrajuni ki maa sakantu gayraki saxiixu tirmisi yi dafa doon jàkk bi muy génn màkk dafa jàkkaarloog dëkk ba joxar ba ko ne ko benn dëkk gënaluma la ci fi fi yow rek laa bëgg dëkk benn dëkk gënta teey gënuma laa teeyal cib dëkk bu ma sañoon duma la génn bu fekkoon ne sama nit génnewuñ ma kon duma dëkk fenn fudul fii loolu kon day wane ne bëgg bëgg bëgg réew xubul watan li ñu naan minal minal iman loolu lii moo koy firndeel mas nañ ko laaj sallallahu alayhi wa sallam itam ne ko ndax racisme mooy nit bëgg bëgg aw xeetam yonent bi ne déedéet loolu du racisme waaye daf waaye liy racisme dëgg-dëgg mooy nit di dimbali aw xeetam ci ak tooñ amin al asabiyati an yuhibba rajulu qawmahu mu ne la walakin min al asabiyati an yuhina rajulu qawmahu ala zulmi waxtaan wi nag muy tomb bi ñu war a waxtaane ngir càmbar ko ak faram-pànce ko ñu yóbbe ci leeral ñeenti tomb yi muy leeral lan mooy alwaxda alwataniya mooy unité nationale lan lañ ci jublu lan mooy mécanisme yi walla yoon yi ñu war a jaar ba mën a réaliser bëgg-bëgg boobu tombub ñetteel bi lan moo juddoo ci bu nu fexee ba bennoog askan wi nga xam ne mooy sunu bëgg-bëgg ñu fexe ba loolu taxaw yan njariñ lañuy jural lu ci juddoo ak yan jeexit yu teey lay am ci biir réew mi ci wàll yu wuute tomb bu ñeenteel bi lan mooy wartiifu citoyen bi ci boppam mooy nit ki en tant que individu wartiif bi ci fexe ba bu ñu tabaxee loolu lan moo ci war a nekkub taxawaayam bu ñëwee ci tomb bu njëkk bi te mooy ine mooy mooy waxdal wataniya mooy benn xeet bi euh, loolu concept la boo xam ne ulamaawul qaanuun ni ñu ko xamlee mooy aw xeet mooy mbooloom nit ñu dëkk ci benn barab benn pàkk pàkk boo xam ne bu ñu limité la mu ami frontière ñu bokk bokk histoire maanaam bokk taarix bokk identité bokk démb am benn pouvoir politique bu ñu nekk ci ron kilifteefam loolu moom la ulamaal xaanoon xamle al wahdatul wataniya te muy unité nationale loolu mooy mooy loolu la concept boobu loolu lay tekki bu ñëwee ci mécanisme yi nga xam ne mooy waral ñu mën a fexe ba taxawal lool loolu am danañu gis ne juróomi mbir du mën a ñàkk te la ca jiitu mooy lu mel ne famille famille ndax nit doomu aadama koo gis rek dafa triangle doomu aadama koo gis saalu si salaasa la maanaam ñetteelub ñett la ndax ku nekk yàgg sa ñaari way jur ak yow muy ñett kon nit dañ koo mooñaale ak gimmee ci mbooloo ndax mbooloo la ci gën a néew mooy ñett wala ñaar te ku juddu ñetteelub ñett nga ndax danga am ñaari way jur ak yow muy ñett kon foofu fa lañ lay tàmbalee sax ni ngay dundee ci biir mboole fa lañ lay sax ni nga bëgg saw xeet rek sa askan kon al usra lu am solo la ci wax waxdal wataniya mën nañ ne mooy fondement bi ndax mooy birig bi jiitu ci tabax bu mag bi nga xam ne mooy société bi fe la saa ndaw fe lañ koy eh, jàngale abajadab bi njëkk ci ni muy bëgg réewam fi lañ koy saa ni muy eh, bakkoo di damoo am réewam ci lañ koy jàngale aaday réew mi ak cosaanam la ca tege mooy diine diine it ñu ne xam na ne diine yépp la cay gën a nekk principe fondamental mooy ñu booloo diine yépp day woote ak booloo sunu boroom sax buy lim faveur yi mu defal jullit ñi way gëm ñi buy lim faveur yi da ciy boole xéewal yi mu leen defal bi mu tàppee seeni xol wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wadkuru bi ni'matihi ixwaana loolu fii maarid limtinaan day lim faveur yi muy defal jullit waaye da ci lim bi mu tàppee seeni xol ba nekkatuñ ay noon kenn ku ne di xeex sa morom ak di ko jéem a faagaagal mu waxati ko yonent bi itam sallallahu alayhi wa sallam ne ko huwa alladi ayyadaka bi nasrihi wa bil muminin wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fi l ardi jamian ma allafta bayna ma allafta bayna qulubihim walakin allah boo dépensé woon li na ci kaw suuf si lépp itam doo mën a fexe ba tàppe xoli nit ñi waaye loolu sama ngëneel la man yàlla sama xéewal la mu tudde loolu xéewal bari na fu mu koy waxee ci alquran wadkuru id antum qalilun mustadafuna fi l ard taxaafuna an yataxatafakum naasu fa awaakum wa ayadakum bi nasri wadkuru id kuntum qalilan fa katharakum kon mbooloo mu booloo di dimbalante ci lu yéwénal seen mbir seeni seenu nekkin man a dund ci jàmm akuk dal loolu mooy euh, objectif bi nga xam ne moo tax a jóg daanaka diine yépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne nahnu ma'ashir al anbiya suñ diine benn la dafa mel ne rek ñu bokk benn bàyyit te ay wujji jur leen suñ diine benn la waaye ummahatuna shatta donte ay jamono yu wuute lañ leen lañ leen yónnee itam lañ doon woote rek benn la kon diine waxta waxtasima bi xablillaahi jamian bu ñu ko waxee nag ci wàllu diine waaye xablullaahi it ba léegi bu dee ci réew mi réew mi ja li ñu boole te mënuñu ko séddoo moom it day daal day nekk day tudd xablullaahi donte dañoo wuute sax ci askanoonte ci wàllu diine kenn ku ne xam na ne réew mi Eh, minorité am na minorité bu dul jullit bu fi nekk waaye minorité boobu am na jamono yooyu eh, ke jiite réew mi foofu la bokk kon day wane ne yi nu wuutale ci wàllu ay askanonteeg wàllu raas ak xeet ak ay làkk ak diine eh, taxuñoo taxut taxut ñu tàggoo lanu boole muy muy réew mi bu ñu taxee ba li liy jariñ ñëpp taxaw su booba kenn ku ne danga nekk ca la nga nekk waaye dañuy jiital li ñëpp liy jariñ ñëpp ndax garab kat garab gi ci pénc mi te waa pénc mi di ko jariñoo kon wartiif la ci ñi nekk ci pénc mi ñëpp ciy dox ci luy suuxat garab gi kenn wërta dox ci luy rew reen yi wala ngay dagg bàngaas ndax bu bu reeni garab garab gi daggee garab gi daanu bu ñu daggee bànqaas yi duutuñu mën a jariñu ci ker gi duutuñu mën a jariñu ci meññeen mi kon li waa pénc mi lépp war a jariñoo ku nekk ci pénc mi ku nekk war nga ci sa wartiif mooy fexe ba sàmm loolu day mel ni rek per perub kurus perub kurus wuñ gi ko nose moo tax mu tudd kurus di jariñ li kurus di jariñ waaye bu ci benn kurus eh, daggee duutu jariñ la kurus di jariñ te mën naa yóbbe yeneen yeneen per yi itam ak nocci ko kon rolub walla wartiifu képp ku bokk ci askan wi bokk ci mbooloo lay sa mooy fexe ba lay ñoŋal mbooloo moomu doo dox ci li koy yàq wala lu koy tàqale gis ne eh, ittiwoo gi diine diine ittiwoo ak bennoo ak ak booloo loolu moo yóbbu ci Sëriñ Tuuba ci ay munaajaatam ak i ñaanam muy ñaan yàlla tàppe suñuy xol waccal qulubana ala tawaddudi bila tanazuin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaaxudin wala tanaafuri xataa nasiira muslimiina xaashiin wa muminiina muxlisiina saalixiin di ñaan sunu borom ne ko yàlla nga tàppe sunuy xol ci bëggante bañ a xëccoo bañ a añaanante bañ a xuloo bañ a wonante ginnaaw bañ a meroo bañ a foñante ba ñu nekk dëgg-dëgg ay jullit yoo xam ne dañuy ragal yàlla gëm yàlla di sellal tey jëf-jëf jiw loolu moom la Sëriñ Tuubaa daan ñaan ci ay diyaaleem waaye yemu ca moom la itam bu ñu gisee ni mu doon dunde itam noonu la doon dunde mooy lépp luy boole jullit ñi ba teel ku teel a dégg waxi sunu borom jëm na laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli moo tax mbiri tarixa yi sax bi mu ñëwee daf ne wér di wu ci woo ci jàpp moo xam bu askanoo ci Cheikh Abdou Xaadir Jeylaani wala Cheikh Ahmad Tidiane wala Chazali wérdu mu ci mën a doon dalay yóbbu ci péyub yàlla la wérdu yépp ci dëgg lañ nekk fa kullu wirdin yóoridul murida li xadratillaahi walan yabida sawaun intama ila al aw intama li ahmad tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi id kulluhum qatan ala alsawaabi id kulluhum yadcu almuridina ila taati rabbil arshi xaytuma jala bilistiqaamati fala tasxar ahad minhum wala tunkir alayhimu abad loolu ku bëggutug bennoo doo ko wax ndax li mu gëm mooy li ñu la digal ci nubuwa lañu la digal ci wilaaya laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli yooyu muy famille ak diine loolu ñooy seen rôle ci luy boolew askan mu des li ñuy wax communication mooy al i'laam i'laam itam moom it mën naa mën naa suyee rôle bu rëy ci boolew askan comme ni mu ko mën a yàqe day mel ne ngànnaayul ñaari ñaari ñawka la am mën nga cee jariñu mën na si ne ci jariñu waaye man mën naa lore itam te loolu kenn du ko weddi ci jamono yi ndax kenn ku ne gis na ni eh, réseaux sociaux yi mel gis na itam réew yu bare bare yu tàkk ay guerre civile di fa am te mi ngi sababoo ci communication ak ay journaliste ñoo xam ne léeg-léeg dañuy dañuy far faral genn wet di wax loo xam ne luy luy tàqale nit ñi la wala lu tax ñu ñu ñuy jëlante ngànnaay kon communication mën naa def luy boole nit ñi ndax dina yee nit ki di ko jox yi xew-xew yi xew ci àdduna bi di ko xamal dina tax itam culture am gën a yokku dina tax man naa mën na fexe itam ba aw askan jubóog ay njiitam mën nañ fexe ba askan yu mën a jubóog ñi leen jiite ci wax lu rafet comme ni mu mën a fexe ba eh, tàqale leen ñu jël ñu ñuy ñuy tojante bopp kon kenn ku ne boo doxalee sa rôle bi nga war a doxal ci luy boole nit ñi askan wi askan wi rekk ci jariñu naka noonu attenlim muy jàngale ni communication mën a mën a suyee rôle bu am solo noonu la xam-xam mel ndax xam-xam kat mën nga ne mooy dooleewu askan askan wu la gën a fonk xam-xam jàng ak jàngale rek mooy askan wi nga xam ne moo la jiitu askan woo xam ne nisbatul jahli bi dafa gën a suufe kenn ku ne xam na ne woowu mooy askan wi mën a eh, yokk ci wet yu nekk kon askan wu ngànnaayoo xam-xam mooy askan wi am doole mooy askan wi nga xam ne mën naa lijjanti ay mbiram ci ak dal ci jàmm ci yoon wu tege ci xam-xam ndax ci xam-xam rek la ñuy tabaxe ndaw ñi ndaw ñi nga xam ne ñooy yor ndono li ëllëg ci xam-xam lañ leen mën a tabaxe ba bañ mën a am kàttanu mën a yan yanu ndonali ci mu gën a rafete kenn ku ne xam sa responsabilité ci xam-xam ci ci xam-xamet la aw askan di ame doole mooy sookalu mooy sookalu sookal bi nga xam ne mooy dooleel askan ba kenn du ko mën a kenn du mën a tas askan wa kenn du ko mën a fàq ndax dañ koy fonde ci xam-xam tabax ko ci ba mu dëgër ba nga xam ne e, kenn du lan mën a fàq kenn du mën a fàq askan wi kon xam-xam jàng ak jàngale lu am solo la ci benn lew askan bi ñu léegi tombum ñetteel bi bi nga xam ne dafa bokk ci mécanisme yi ñuy réaliser unité nationale te mooy fexe ba taxawal ak bennoo cim réew wala booloog mbooloo mi ci lu leen di amal njariñ loolu lam lan lay jur li muy jur simaaru taxqiq al mahabba al wataniya wa asaarahu tayiba ala said al watan fi muxtalifi nawaaxi lan lay jur li mu jur mooy dana jur meññeen mu bari dana jur jeexit yu teey yu am njariñ ñeel askan bi te loolu bokk na ca askan wi am kàttan ci mën a jàmmarloog bépp congu moo xam ne da moo xam ne da leen di bawoo moo xam ci biir askan wi lay doon wala ci bitiw askan wi ci biir réew mi walla bitim réew bépp cong bu jóge cib noon noonu biir wala noonu bitti dañu am kàttanuk mën a jàmmarloo moom ndax mboolookat mooy doole wa atiu llaha wa rasulahu wala tanazau fa tafchalu wa tadhab rixukum na ngeen e, topp yàlla ak yonentam te bu leen xëccoo bu leen ŋaayoo bu ko defee ngeen di yoon jax ñàkk seen doole kon bu bennoo amee rek duutuñu ragalum noon ndax la mën a faagaagal kenn mënta a mbooloo bokk na ci njariñ yi yi nga xam ne moom la bennoo di indi a taqlis min al jaraim al ijtimaaiya mooy wàññi eh, agression yi nga xam ne day am ci biir société bi ndax bu kenn ku ne jàppee sa morom di sa bopp su booba jàmm nga ko yéene te ku tëdd dinga nelaw ba yàndoor ndax xam gi nga xam ne sa mbokk kat mi ngi foog ngir sa sécurité ak sa sa jàmm kon benno day wàññi agression yi nga xam ne ak violence bi nga xam ne dañ koy seetlu léeg-léeg ci société yi nga xam ne e, nit ñi ña ngay xiiroo ko ŋaayoo te teg ko ci ay waasoo ki xeet ki wutey làkk bennoo day e, sakk kon bépp bunt boo xam ne ak noonoog mbañante mën na faa jaar da koy sakk ubbi bunt yi nga xam ne bunt bunt bunt cofeel la cofeel bi nga xam ne eh, benn boobu ñu fexe ba mu taxaw ci réew mi ci ci askan wi moo ko jëmbat ci xol yi nit ñi kon fexe ba ak cofeel tasaaroo ci xoli nit ñi ba kenn duutu amum tiit ci sa morom loolu dara ëpp ko solo ci ci meññeeti eh, alwaxdal wataniya muy bennoog askan bokk na ci njariñ yi nga xam ne bennoog askan dina ko indi mooy sécurité ak kóolute nit ñi nit ñi am sécurité ci seen alal am sécurité ci seeni bakkan ak sori ak ragal ak ragal sori lool xoli nit ñi ndax ku nekk da nga mën a nelaw ba yàndoor xam ne sa mbokk mi ngi taxaw ci sawet di la défendre ci wépp danger boo xam ne mën na laa jóge ci ab workat kon njariñi bennoo lii lu néew la ca waaye mëneesu ko lim ndax njariñ la rek mooy mooy mooy tax aw askan mën a avancer ci wet yépp waaye bu bu fekkee amuñu jàmm amuñu dal ci ñi ngi xiiroo ko ŋaayoo duñ mën a avancer ci wàllu économique duñ mën a avancer ci wàllu politique duñ mën a avancer ci wàllu social lan mooy waru garu wartiifu Eh, nit ki nit ki nga xam ne kenn la ci mbooloo mi maanaam warteefu citoyen bi ci boppam ci bu ñu demee ba taxawal loolu ba taxaw taxawal tabax tabax bi nga xam ne mooy tabaxu bennoo bennoo askan bu ñu demee ba taxawal ko lan mooy war a goram mooy mu sàmm ko ci lépp loo xam ne nar naa yàq nar naa màbbu tabax boobee ci kem kàttanam ni ko yonente bu lislaam bi digle man raa minkum munkaran fal yuxayiru bi yadi fa in yastati fa bi lisaani fa in yastati fa bi qalbi wa dalika adaful iman ndax ku nekk yëg li am li am solo mooy nga am yëg-yëg wu ne am nga responsabilité ci biir askan wi am nga responsabilité ci liy ñoŋal bennook askan wi lépp lu ko yàq nag moo xam ci biir la jóge wala ci bitti la ci sa warugar ak sa taxawaay mooy nga taxaw fang loola ba du am ci ni ko mane ci li nga xam mën nga ko soppee sa loxo nga soppee ko sa loxo li nga mënut soppee sa loxo nga reetat ko sa làmmiñ ba kilifa yi nga xam ne ñooy mën a saafara loolu jot ci boo ko mënut nga naqarlu ko ci sa xol waaye kenn wër taxaw di seetaan nit ki du taxaw kenn du taxaw di seetaan loo xam ne day jurug yàq loolu nga xam ne moom mooy moom la miine réew mi mooy nit ñi wuute gi ñu wuute ci ay askan ak làkk loolu du wuute guy guy màbb waaye wuute guy guy defar la ndax sunu boroom moo namm ci noonu wute googu ndax moo ne indi naa inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum indallahi atqaakum kon wuute googu wuute gu gu positif la ni ñu koy waxee waaye du wuute gu xam ne day màbb waaye luy defar la ndax kenn ku nekk yàlla dénk dénk na dénk na la ay man-man yu nekkul ci sa morom kon bu ngeen àndee booloo rek daal di am doole daal di a jariñu mën a jariñante loolu ndono loolu woowu tëralin moom la fi mag ñu baax ñi bàyyi moo waral réew mi nekk jàmm ba nëgëni kon bu ñu demee ba jëmmi jamono li ñuy wax awlama ñu jëggaane ci jëggaane ci awlama muy mondialisation yi nga xam ne yooyu xew ci yeneen réew yoo xam ne amuñu tawféex ji ñu ñu jéggaani ñoom yenn melokaan looloo kon bu ñu tànnee tem bu mel nii ngir di ci fàttalante di ci fàttali ndaw ñi looloo damay wax ni kon tem la bu ñëw ci waxtum lu mat di fàttali la ndax ku réere sa bopp ku nekk rek dangay ngay daal di réer te lii mooy màndarga yi ñu xame senegal mooy màndarga bi ñu miine mooy réewum tolérance réewum tiranga eh, di réewum jàmm kon muy ndaw muy mag ak même li nga xam ne sax askan woon ci réew mi ñoo ñëpp seen wartiif mooy mooy war a dox ci luy ñoŋal bennook askan wi ndax loolu kat mooy indi développement bi nga xam ne moom la ñuy mébét développement wala émergence yi ñuy wax munta am mukk ci réew mi di xiiroo ko ŋaayoo rawatin nag ñuy réew réew yu néew doole yoo xam ne li ñu yàq boo liggéey noo koy soxlawaat bu dara amee ñuy yàq di toj ay Sénégal ak di yàq ay commissariat di yàq station essence di toji banque yooyu yëpp boo liggéey ñun ci ci ñun lañ koy jëlewaat rek ay impôts yu ñu jëlaat di ko defaraat di ko di ko di ko di ko defaraat te loolu xajoon na ci noonu kon tëralin bi mag ñi tëraloon ci bu ñu amee ay jafe-jafe ñu toog waxtaane ko seen biir ba trouver solution wawu wawu tëralin ci lañ war a dellu te moytu biijoo joo ko ŋaayoo eh, ñu ngi mbegte bu baax a baax ci dajawaat ak yéen ci jotaay ramadaan yu am solo yii ñi ngeen di xaroo weeru koor bi di ko dundale di ñaan sunu boroom nangul nu jëf yi ñu ci jëf yi ñu ci jëf li ci nekk ci wiyu yépp sunu boroom màngloo ko muy njëgal gi yërmande ji ak gore ci safara te fulal ñu ci suñuy jëf eh, jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp loolu ci tënk rek moom lañu indi woon ne doon nañ ko laabirante génn wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh